maskani sallim min alfujjaari barke borom Tuuba bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibé yi topp seen télévision As-Samadiyya TV ak As-Samadiyya FM 102.9 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax a baax euh, di leen jaajëfal ci émission bu mag bi ngeen di topp mooy seen émission Mawoun Diarry di waxtaan ci ndoxu Tuuba moo xam ndoxu naan bi moo xam ndoxu taw mi wala sax OIC bi lépp luy ndox dal ci dëkk bi émission bi daf ci wax mbokk yi kon gannaaw buñ leen di nuyoo ñu jiital ci nuyoo bi xalif général ku murit Cheikh Mouhamadul Mountakha basiru yàlla fi yàgg lool tànn ak ba lim yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp mu defee ko ni ko Serigne bi bëggee te lépp ñu ànd koog moom barke Serigne Touba di siyaare sunu Serigne Serigne Abdoulaye moom Serigne Souhaïbou di ñaan suñu borom guddal fanam wéral cëram. ba yéene ji mu am ci liggéeyal maamam ju tedd ji lépp mu defee ko ni ko maamam bëggee te lépp ñu ànd ko moom barki Seexul Xadim waaye di ko siyaar ay di ko ñaanal ay magam ak rakam ak mboolem seex ji ak taalibe yi mbokk yi tey nag ñu am yéene ñëw ci émission bu am solo fas yéene dalal euh, sëñ Fallou Mbaye euh, ni ma leen ko waxee rek ci annonce bi mën naa ni ku dëkk ci dëkk bi la société civile la di yëngu ci euh, lépp luy développement ci dëkk bi waaye doxinu dëkk bi yu baree bari yitteel ko mu di ko càmbar di ci bàyyi xel di ndaw lu dëkk ci dëkk bi euh, liggéey yu bari ci dëkk bi itam mu ci dugal loxoom tax na ñu indi ko fii tey ndax ponk bu am solo bi ñuy waxtaane waaye itam sama loxo càmmooñ itam sëñ Cheikh Sarr mi ngi ci euh, moom itam di tàgge man nekk fii ci Mbare euh, li tax ñu indi ko mooy thème bu am solo bi ñuy waxtaane muy inondation yi yaakaar naa wax nañ ci semaine passée ak dundin yu ak askan wi ñu ko dundee jafe-jafe yi waaye tam taxawaay yi nga xam ne autorités yi amal nañ ko ci muy autorité locale yi waaye itam autorité euh, étatique bi ñoom itam ku ci nekkee rek def ci li nga war euh, wala boog def ci ay taxawaay ngir génneel ci jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu dafa séddali ko muy ni oto yi tamit dañ koy dund ndax tali bi day yàqu ay toj-toj déviation yu bari li ciy tukkee loolu yëpp tamit ndax loolu tamit amul lu ciy wax lu ciy xaar autorités yi moo xam. autorité étatique yi la wala autorité locale yi la wala autorité religieuse yi la wala sax Touba ci kanam wala mairie bi wala ku mën a doon loolu moo tax ñu bëgg a ñëw waxtaan ci euh, mbokk yi bu ci kanamee itam dañ leen mën a ubbi ligne bi bu leen bu ngeen mën ngeen mën a woote ci 77 670 51 51 seen émission Mamoune Diarry balaa boobu damay bàyyi sëñ Fallou Mbaye ñu ngi lay nuyu di bàyyi nga nuyu ak mbokki téléspectateurs yi ak internet yi nga xam ne ñu ngi suivre ak ñu ngi topp ci As-Samadiyya FM. salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mourtala. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. di ziar itam sëriñ Cheikh mi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo waaye di ziar mboolem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan télé bi di As-Samadiyya. di ñaanal itam Cheikh Mawlud Muntaxa mu yàgg fi loolu te di ko ñaanal mbooleem njabootu borom Tuubaa gi yëpp. di ko ñaanal itam mboolem murid yi su ko jébbalu. di santaat bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni am ngeen ko ci soxlay askan wi muy As-Samadiyya ndax. ku ne gis na Tuubaa ak jafe yi nga xam ne am na fi. mën nañ ni muy première hmm. télé boo nga xam ni hmm. ma ngi taxaw fexe ba jege askan wi ba lépp luy seen jafe-jafe hmm. mu di ca wax surtout particulièrement muy sëñ Mourtala ci lu am solo li nga xam ni Touba mënu ko woon ñàkk muy émission bi nga xam ne mooy Maoun jaari ndax ku ne xam nañu Touba jafe-jafeem li ci ëpp doole ma ngi doon ci loxum ndoxum naan mi ak ndox mi nga xam ne ma ngi ball ak ndox mi nga xam ne ma ngi taa kon tey buñ ko indee war ko waxtaane dañu mm-hmm. doon ay doom yoo nga xam ne ci dëkk bi lañ juddoo yaroo ci dëkk bi waaye suñu lépp itam di dëkk bi mm-hmm. dana ñu neex lool waaw jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Fallou ñu lay sant bu baax di la gërëm euh, ci nuyoo bu am solo boobu di la jaajëfal euh, sëñ Cheikh Sarr yow tam ñu ngi lay nuyu la bàyyi nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo ñu topp ci jataay bi waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare di jiital ci nuyoo beeg ziare bi Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te ko te kartanal ko ca dooleel ko ba naal yi nga xamante ni sumb na ko suñ mm-hmm. boroom may ko mu àggale ko ca naalaat yeneen ci barki xaadimu rasul mm-hmm. ñu ngi nuyu ñëpp nag di saare ñëpp di saare képp ko xam ne yaa ngi teewlu jataay bi ak émission bi mm-hmm. ñu ngi lay siyaare di la jox sa wàccuwaay di siyaare euh, waa Madiyaana gépp nag gaarasu taxi ba ma jógee suñu président muy si la moom maa ngi koy ziare bu baax a baax di ziare képp ko xam ne yaa ngi ci biir garas bi rek. Mm-hmm. maa ngi lay ziare di la jox sa wàccuwaay. Mm-hmm. di bëggee ñëpp nag. kon oh. salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ngeen xel sama ñaari gan yi ak liñ fi indi ak thème bu am solo bi nga xam ne moom lañ fas yéenee waxtaanee ni ma leen ko waxee léegi kon nañ daal dugg rek directement nga xam ni moo waral waxtaan wi euh, sëñ Fallou mbay jamono ji ñoo ngi ci. Euh, xëy na ci mujjug nawet bi nawet bi ndax moom ba tey ma ngi law law di dem rek xamuñu ba xam six mois la bëgg a taw wala waaye daal li am ba am daal mooy ndox mi wàcc ren na lool ba jéggi dayo ba dégâts bari na déjà dégâts yi am muy kër yi nga xamante ni ndox mi nangu na ko euh, loolu donte bi ak bi fii ñu ci awee taxawaay naka ngeen ko jàngate waaw sëñ Mourtalla xanaa di masawu mbooleem ñi nga xam ni yàqule nañ ci nawet bi. Mm-hmm. ak mbooleem ñi nga xam ni am na lu tax ci ñoom lu mm. yàqu waaye loolu dañ naan ci dëkk bi la dal sax ndax mm. xam nga ñu dëkk bi bu ñu demee bañ la saw taw na fi cent quatorze millimètres et quelque mm. kon xam nga ñu ndox mi bari na ñun nag yàlla def ñu nekkoon ay acteurs yoo nga xam ni doon nañu wàcc ci terrain bi xuus nañu itam ay ndox kon xam nañ li fa nekk muy loo nga xam ni fi mu àgg ci mettit ak dayoo kenn mënu koo misaal waaye nag duñu ni metti na rek nañu masawu nit ñi tax ñu dem toog ci mm-hmm. ndax bu fekkoon ni dañ naan li waroon a jiitu jiitu na mm-hmm. amaana lii bu ñëwee mën naa bañ a mettee nii mm-hmm. waroon a jiitu maanaam mooy dëkk buñ koy tabax dafa bokk ci loo nga xam ne dañ koy moñaale mooy ni nombre kër yi toll ni la espace yi di toll ni la mbedd yi di toll loolu nag lépp loo nga xam ne sàkk nga ko ci wala nga baare ko ci wala la ci war a am amu ci dana dem ba mu yàgg muy di catastrophe ndax buñ xoolee fu ko gën a rafet lotissement amul. Mm-hmm. mais fan ngay dox ci Touba ba fekk fa espace public bu fa des. Mm-hmm. moo xam fu ñu mën a def jàkk wala fu ñu mën a def daara wala mu fu ñu war a def sax école wala espace public boo xam ne askan ñu dana ko soxla. Mm-hmm. néew na foo koy gis ci Touba. wàccaay wi daal day mel waaw. waajaloon nañ ko waaye dañu dem ba ci biir. espace yooyu desoon ci biir dëkk bi ñu dëkkee ko. te dëkk du fépp lañu war a dëkke benn bi ci topp itam mooy dëkk bokk na ci li ci jiitu mooy buñ ko lotissé ba pare dañ ko war a canaliser. Mm-hmm. soo ko jox nit ñi. Mm-hmm. am na zone yoo xam ne ay zone la yoo xam ne dafa xóot. Mm-hmm. ku ne xam na ni boo fa dëkkalee nit tôt ou tard day am ndox. ndax Touba lépp ci zone yi nga xam ne tey ñoo gën a sonn. ku ne képp ku laaj moo xam muy sa papa wala wala wala sa maam dañ la fii moom sonn ndox la mu sa nekk. te biñ ko lotissé ba pare xam nañ ko. kon waroon nañ ko prévoir. dëkk nag dafa mel ni. prévoir lu ñëwagul. Mm-hmm. de li li mu lay dimbalee mooy lu mel nii bu ñëwee. Mm-hmm. waaye Touba bu ñu demee ba ñu la catastrophe am na fi boo nga xam ne da ngay xool deux kilomètres carrés yoo nga xam ne lépp ci ndox lañ nekk. Mm-hmm. loolu lu metti la. dëgg la bu bari dina ci yàqu alal yu bari dina ci seey. te su boobaa li ñuy def mooy nañu génne ay xaalis dimbalee ko nit ñi pour man loolu du li nga xam ne mooy dimbali population bi dee déedéet. dëkk bu fekkee ni dañu nekk ci jafe jàpp naa ni xaalis bi nga leen di jox ñu di ko dimbali ko moo xam ay saaku ceeb wala wala wala wala benn weccet boo nga xam ne du mat cinquante mille du ko ëpp mm-hmm. loolu du leen dimbali mais li nga leen dimbalee mooy fexe ba fi ñu dëkkee nga defar ko ba catastrophe boobu dootu leen dal mm-hmm. wala boo demee xam ne amatoo ci benn pexe mm-hmm. nga fexe ba déménager leen yóbbu leen feneen foo nga xam ne leen dal fii dootu leen ci dal loolu nag dafa mel ni léegi da ngay toog bu yàgg nga ni est-ce que sax ay borom xam-xam dëkk nañ ci dëkk bi ndax da ngay gis ni lii. Mhm. lu yomba saafara la. Mhm. wala yoon yi buñ ci jaaroon mu saafaraw. Mhm. waaye da ngay gis chaque jour ba léegi yoon yooyu dañ koy wër ak a wóoy duñ ci nangoo jaar. waaye ci loolu bu fekkee ni état du Sénégal moo prévenir lan la tamit ñi nga xam ne askan wi di prévenir parce que taw bi ñëpp annoncé woon nañu taw bi dina bari loolu xam nga état waroon na ci waajal mais bu fekkee toll nañ ci état boo xam ne état sax waajalul loolu kon askan wi est-ce que ñoom itam euh, seen ñàkk waaj loolu des na leen ci a état bi dañ naan yàggul fi mmh. population bi moo ko fi jiitu mmh. wala ñu ni population bi yàggu fi état bi moo ko fi jiitu mmh. waaye boo xoolee Touba ni muy doxee da ngay xam ne lu bari ci lu fi état di def moom day tàggoo wala wala catastrophe am rek mu mobiliser li ma am ñëw ndax bokk na ci mooy dëkk bi autorité étatique yi fi nekk wax ma lan mooy seen taxawaay ci dëkk bi. Mhm. mu jiitu ci maire bi nga xam ne moo fi nekk tey. Mhm. te ñu ni lépp luy soxla askan wi. Mhm. wala seen jàmbat wala seenu bëgg moom moo ko war a taxaw. ndax taxawaayam ci dëkk bi am maire nee na mi ngi defar ay poste de santé. nee na dëkk bi màggal yi daa bari. màggal gune dana ko waajal dana fa yóbbu suuf dana fa yóbbu ndox danañ ko waree village parce que nee na mas naa dégg mu wax ko mu ni 450 màggal am na ci Touba ak li ko wër te màggal gune war nga faa yóbbu nee na mais mais ma dégg war nga faa yóbbu euh, auto vidange de bala moo ñëw bu fekkee dañoo laaj sëkk da nga yóbbu suuf da nga tàddee it am lu ko war yóbbu ceeb wala leer ak leer wala mu yóbbu engrais wala dara est ce que du loolu tamit yu mel noonu mooy li nga xamante ni moo nee na nag loolu ne fàng ñoom nee nañ def nañ ay poste de santé eh, yoo xam ne xëy na ñoom dinañ ñëw fi leer ko seen bopp xam nga tey. Mhm. Euh, boo demee ba naan ma maire yi mus naa ko wax benn waaye mu dugal benn maire boo nga xam ne ñoo sës loolu dama bañ a tudd dëkk bi. Mhm. wane ko ak ay ay auto mhm. ma ne ko ku dul ku dul maire bu Touba maire bu Touba moo la mën ci vider force. waaw waaye est-ce que loolu tey mooy ndax nit ki. lu jiitu muy vider. fi mu war a dëkkee ba pare. est-ce que maire bi xam na lora loolu comme dem na ba naan ay màggal. màggal dañu dab. mais dëkkin bi moo ko war a jiitu. Touba problème bi njëkk am muy loo nga xam ne autorité administrative bi war nañ taxaw. Mhm. mooy problème mu kayit. Mhm. est-ce que taxawaay bi ñu ci war am am na ci. problème mu kayit dama naan déedéet ndax bari na ñoo xam ni tey Touba seen numéro de registre baaxul. Mhm. bu ñu demoon tey ji bëggaat extrait dañuy dem def sisement hmm. ñu bari ci ñun ñii. mais loolu partout Sénégal gépp la parce que yaa ngi dégg ñu wax numéro yi dañ koy jaay nangam nangam loolu réew dëkk bépp nga dégg ñuy ñuy coow loolu. gis nga Sénégal yëpp bu ñu koy coow. Hmm. dañ naan bu fekkoon dem na ba am catastrophe boo nga xam ne ñu ngi koy coow. Hmm. ci Sénégal tey Touba la. mën nañ ni téeméer yoo fi recensé. Mm-hmm. cinquante pour cent yi seen i papier baaxul. Mm-hmm. man yàggul semaine bii rek dem naa doon wuti benn papier ci registre 2000. Mm-hmm. ba nii damaa mujj ni borom na wuti na wuti sisement. parce que nekku fa. te teguñ dara sama loxo mooy. gisuñu ko gisuñu ko lañ teg sama loxo. beneen bi ci topp mooy. tali dëgg la mais ban tali. ku ne xam nañu tali yoon la pour oto yi. Mm-hmm. mais yoon pour oto yi ni mu amee noonu la yoon war a amee pour ndox mi. Mm-hmm. mais dañuy dégg tali yoo xam ne dañ koy lancer travaux yi. mais mais mais maanaam sëñ Ball. Mm. Euh, mi sax moo waral tali yeeg mel noonu tey tey émission bi loolu la maanaam waxtaan ci ndox mi ak li mu yàq ci tali yeeg oto yi noonu dinañ ñëw sax d' accord waaye fi ne li nga bëgg a wax nii euh, tey du prérogative maire maire war du ma war a defar tali yi. du ma war a def assainissement bi. loolu yooyu du prérogative état la. waaye waaye prérogative étatique bi. Mhm. lu mu fi nekk nekk maire mooy ki ko fi nekkal. waaw mooy taxaw ni ko soxla naa lii bëgg naa ko ma ci dimbali. Mhm. état ni ko am naa lii mu ne ko léegi soo paree maintenance bi dinaa ko mhm. gérer ci lii ak lii. loolu da nga ne maire bi def ko. Mm, ah man de bu fekkee ma ngi koy def. tali tali ñuy defar fii yi nga doon wax yi nga bëgg a junj yi. tali ñuy defar fii. Mm. loolu état koy wala maire koy tali yi ñun bëri na tali yoo xam dégg nañ bi ñu koy lancé. Mhm. ñu ne tali yi am na projet caniveau. Mhm. am na éclairage. Mhm. ndax loolu ay canal am na ci wala éclairage amu ci. mais loolu responsabilité état la responsabilité maire. mais maire responsabilité maire. <laughs> parce que tey soo demee ba yow yaa fi nekk. ñun la am nga nangam nga dem ba amul. ana say contrôle nañ génn ni liñ ñu waxoon du lii wala. contrôle état wala contrôle maire. xam nga tali yi du état yow dama wax fii maire war na ci taxaw. jëmmi entretien bi mu war a taxaw sax taxaw ci. Mhm. ndax waxuma ci dëkk bi tey ban yoon moo fi baax. Mhm. gis nga jumaa ji nga xam ni. Mhm. moo nekk ci xol dëkk bi. amul fenn foo koy génn du mañ la sax cinquante mètres. mais vingt cinq mètres te doo gis pax. te jumaa ji mooy xool dëkk bi. dëgg la est-ce que tey loolu taxawaay la boo nga xam ne tey ci dëkk bi ku ko doon wërëg di ko dégg ci tur. mais loolu ba tey sama question bi day ñëwaat. ndax responsabilité wu maire la wala responsabilité wu état la. mais responsabilité wu maire la. Hmm. parce que tey bu fekkee état central bi li mu war a def defu ko. Hmm. tey maire bi fi nekk war hmm. naa taxaw ni ah man de fii laa war a tàmbalee yam fii. Hmm. mais li nga xam ne seq naa ko état central bi defu ko. mais du ko def. mais chaque jour boo génnee ñu sant état gërëm ko. ni lim fi def nangam nangam. te tey population bi li ñu soxla woo mënuñ ko am ba léegi. <laughs> jërëjëf sëñ Fallou euh, baal ma teg sa baaraam foofu maa ngi ñëwaat incha allah comme ñoo ngi wax ci tali yi euh, tali yi dañu gis ni ren euh, yàgg naa sax waaye ren gis nañ ni ndox mi jël na ci lu baree bare yàq ko. Touba yi nag du teew ñuy nataal sëñ Cheikh Sarr moom comme yow sax yaa ngi sëfoor nga ne yor oto di dawal waaye moom itam yaakaar naa comme daanaka ci di ci nekk taximan yaakaar naa li may mën xam ci lool mën naa ko bañ a xam euh, dëkk bi bu ñuy wax ne tali yi normal luñ wala dañu am jafe-jafe en tant que taximan yéen nu ngeen ko dundee. waaw ñu de ni ko dundee moom. Mhm. mooy metti rek. Mhm. ndax kenn ku ne xam na ni. Mhm. Euh, yoon yu baax mooy defar oto. bu amul yoon bu baax sa oto mënut a baax te jafe-jafe boobu am nañ ko bu baax a baax a baax dem na ba nga xamante ni tamit oto yi nga xam ne dañuy xuus ci ndox mi di am jafe-jafe moteur wala am jafe-jafe organe lu ko waral ñàkk tëli yu baax euh, loolu tamit bëgg nañ ku ñu si dimbali ndax ñun ay taximaan lañ nekk ci dëkk bi di ndawi dëkk bi di liggéeyal dëkk bi ndax am na droit de assurement yoo xamante ni chaque fin de mois dañu koy daggloo. Mhm. moo xam muy dugg ci dëkk bi. ñu koy dagg ñu koy dagg ñun. Mhm. par fin de mois bu ne. Mhm. soo ko dëggul autorité day am ak yow. fu ngi jaar ak yow ba nga dagg ko. kon loolu ñun war nañu dimbali bu baax a baax ba nga xamante ni. danañ ñu danañ mën a am kii boo. Ah, xamante ni leen war daal yéen yéen a koy en tant que taximan yéen a ngi participer. waaw ñu ngi participer. chaque fin de bu ne danañ participer. weer wu dee nga dagg droit de assurement. 3000 mille chaque fin de mois bu ne. Mm-hmm. dañ koy dagg. Mm-hmm. soo ko dëggul nag euh, am na lu yoon di def ak yow. Mm-hmm. muy def lay fureere yóbbu sa oto. fekk fa yow droit de stationnement yooyu. dañuy téye sa oto nga fay droit yi. dëgg la kon ñun ñi ngi am lu ñuy dugal ci dëkk bi. kon loolu war naa tax. ñu gën ñoo jàppale. ci yoon yi nga xamante ni. ñu ngi ci am ay jafe-jafe. ndax oto moom boo yoon yoonu baax. du jóg ci ay jafe-jafe. fi ne ni bu ñu la laajoon tey. Mm. ban moo gën ci tey dëkk bi actuellement. ban tëli moo gën ci tëli dëkk. <laughs> waaw <laughs> ah, loolu de moom. <laughs> tëli boo xam ne taxi taxi wala oto bu ci jaaree nga yëg ni maanaam amoo benn jafe-jafe. non ñun tëli bu jaar dañ ciy jànkuwante ki jafe-jafe. Hmm? waaw dañ ciy jànkuwante ay jafe-jafe parce que am na benn tëli bu xam nga Mariana laa féete côté boobu. Hmm. Euh, am na benn tëli bu dugg noonu Sàmm. Hmm. mais su tawee ba tooy am na am na milieu boo xamante ni doo fa mën a jaar. doo fa mën a jaar doo fa mën a jaar. bu tawul nag moom da nga fay mën a jaar normal. waaw. mais bu dee bu dee dafa taw moom du du ñu mën a jaar. léegi yàqu-yàqu yi nga xam ni moo nekk ci tali yi wax nga yaa ngi juñ sànq di wax nii euh, daf leen di gàllankoor ci oto yi organes yi nangam nangam euh, nawet bi ñu nekk nii euh, par rapport ak yeneen nawet yi. Mhm. tali yi gën a yàqu dafa bari wala il def déviation yi ñuy defar ak gis nañ ci Touba Ca Kanam def ay liggéey léeg-léeg ñu gis ay déviation yi ñuy defar ndax loolu tamit ba tey jii du du amélioration amul amélioration amu ci ci nawet bi. waaw loolu uh, ñu ngi jaajëfal Touba ca kanam ndax am na ci yoo xamante ni tur yu bari fatt nañ ko ci suñ côté. Mm-hmm. mu mel ni tëli bi nga xamante ni moo dugg uh, gaarasu Dakar jëm usine xorom. Mm-hmm. foofu danaan mel noo xamante ni uh, pour nga jaar problème la woon. Mm-hmm. mais instant bi moom bu ta bu du buy door a taw nag moom doo fa mën a jaar. te loolu lépp xam naa ñàkk kii rek moo ko waral. mais bu tawee ab diir da ngay mën a jàll. ñu daal am nañ jafe-jafe yoon yoo xamante ni. mën naa ne la suñ oto yépp paan na ndax ndox mi. lu ngeen di panne ci ci organes yi mooy lan. organe ndax mhm. dangay gis oto boo xam ne day dugg ba ci biirum ndox. Mhm. mu fay fa. Mhm. xam oto ba mu fayee ci ndox rek ñaare. ñàkk nga moteur. est-ce que yéen itam bu ngeen jubee koo xam day yàkkamti ñëw jaar ci ndox mi te alors ko mën naa teggi. non teggi bi sax boo xool jaar ci kaw kii bi moo ko gën. parce que mën ngaa teggi dugg mbedd boo xamante ni. da nga gën a am ay jafe-jafe. <laughs> loolu dugg ci pax yi <laughs> dugg ci pax yi wala ngay <laughs> ñun daal am nañ jafe-jafe jafe yoon daal am nañ ko woon ci biir dëkk bëgg ngeen gaa yi jàpp waaw léegi loolu tamit yëkkati kàddu nga wax ak ñoom ñu defar ko moo xam. maire yi moo xam état parce que tamit yoon yi moom dëgg-dëgg maire moom lu ñu ko mën a wax tamit yoon yi moom état ko yoon yi wàllu état la. voilà état tamit war a dugal. mais comme ni rek. Euh, état am na am maire yi am na ci loo xamante ab liggéeyam la. Hmm. comme ñun comme ni mu la ko waxee sànq. Hmm. ñu ngi ci maire nee nañ màggal yi daa bëri de. ñu ngi ah. maire nee màggal yi daa bëri. waaw fenn mel na ne côté boobu nag ci la ëppee ci la hmm. ëpp ay tànk. mais nag war nay gëstuwaat askan wi bu baax a baax. ndax askan wi ndawi dëkk bi lañ. doomi dëkk bi lañ. ndax bëgguñoo sàcc bëgguñoo def leneen liggéey rek la ñuy def. ci dëkk bi mm-hmm. ay taxi lan ma bu ñu xëyee dañuy teg su làmp dem liggéeyi. Mm-hmm. kon nag ki nga xam day xëy di teg làmpam di liggéeyi. Mm-hmm. bu sañ bu wurtu am benn jafe ci kaw tali bi. te jafe-jafe yëpp ñàkk yoon comme ni ma la ko waxee rek moo ci nekk. yàlla xam na ni bu tawee. buy taw nii sax dangay ngay xalaat yow fooy jaar ba xëy suuf. mais askan wi tamit nee nañ yéen taximaan yi fu mu fu mu xiine rek ngeen aj prix yi fiim rek bu ko defee nee na ngeen aj prix ba mu jéggi dayoo. non non non demewul noonu. <laughs> parce euh, boo gisee boo gisee lu mel noonu maanaam teggi bi nga xamante ni yaa ngi koy teggi. ak mm-hmm. risque yi nga xamante ni yaa ngi koy jël. Mm-hmm. ci biir ndox mi. Mm-hmm. ndax ndox boo ci jaar risque risque la comme ni ma la waxee léegi. mën ngaa dem ba ci biir sa oto fay. sa oto am oto mu fayee faye ci ndox ñu si bari. Mhm. nawet bi ma waxee yow. Mhm. ñu si bari ñàkk nañ si moteur. ndox mi. Mhm. ñu si bari ñàkk nañu organe ndax ndox mi. fi ne boo demee garage mécanicien dafa fees dell ak oto. oto yëpp paan nañ taxaw nañ. Ah, ñi ngeen ñaan maire bi mu dimbali ñu ci côté boobu. ndax yéen tam nag comme sinistre yi gis nañ ni. état am na lu mu génne. Euh, bi am na lu mu génne muy jëndatu ñuy dimbali ñi nga xamante si ni dañoo loro ci mbënn mi. Euh, yéen yéen yéen yéen yéen borom oto yi nga xam tamit da ngeen cee loro ndax loolu ñun tam nag loolu démarché ngeen ci wala loolu ba tey yéen amoo leen ci benn kii. non loolu moom ñun démarché guñ ci dara moom waxaguñ ci dara. Mm-hmm. waaw mm-hmm. loolu moom euh, kiiaguñ ci dara. tubarkàlla waaw. <laughs> jërëjëf euh, sëñ Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax di wax mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy wala boog télé téléspectateurs yi wala internet yi euh, saa neexee mën nañoo jaar ci 77 670 51 51 ngir participer ci li nga xam ne mooy débat bi tey nag mbënd mi la ñuy waxtaanee. ndox mi nga xam ne dugg na ci biir kër yi te indi fa ay gàllankoor yu bëree bëri noonu la gàllankoor yu borom oto yi euh, sëñ Fall yaakaar naa yaa ngi woon foo xam ni fu am solo la ci laaj gi wala laaj ci lan la est-ce que état bi warutoon a prévenir waajal nawet bi mbedd yi tëli yu yàqu yi man mënuma wax keneen ku du état tëli yi yëpp a yàqu dëkk bi. xam nga état nag continuité lay nguur gi nguur gu bees la euh, dégg naa sëñ Bass ni kenn mën a gulee na teg dara wax dëgg naa sax benn opposant bu wax ni euh, nawet bi kenn mënu leen cee wax dara dégg nañ sax ministre moom itam mu ni nawet bi du am nawetam dégg nga yooyu yëpp nag day waree ne ñoom ñu ngi soog a ñëw waaye est-ce que nag dans le futur li nekk suñu kanam est-ce que dëkk bi ak dayo bi mu toll ANSD ni dëkk bi moo ëpp département bi ëpp ci ci ci recensement bu mujj bi mooy département de Mbacké te bu ñuy wax nit ñi jëmuñu Mbacké Touba lañ kon est-ce que nag taxawaay yi nag nguur gi jot sëkk mu xool Touba ak dayoom jox ko li nga xamante ne mooy dayoom ngir dëkk bi man a man xam nga xam nga Mourtalla hmm. bala ngaa wax état bi fi nekk da ngay wax état bi fi jógee hmm. mais état bi fi jógee lu ñu ah, ñaata lay toog wax ni ay milliards def na ko ci dëkk mais nekkul fi fii non xam nga la ko mooy hmm. milliards yi ñu doon wax ni mu ngi bi tey ñu ni def nañ ko ci wàllu assainissement te Mamour Diallo ñëw fi taxaw wax ko ñuy dégg assainissement bi nekk fii gisoo ñaata milliards lañu wax lañ ci def. pax mu rëy mi nekk fii ni ñu ko liggéey man xawma ñaata milliards mais pax. gis nga milliards bu fekkoon ni jën nañ ko ay sarbet la wax ay sarbet. Mhm. sànni ko ci dëkk bi. Mhm. maanaam oto dootu fi yàqu ndox dootu fi des ndax mën na koo naan ndax nag milliards. Mhm. bu gis nga buñ fayoo suñu xel yi. milliards nuñ ko ñàkk ñàkk am xam nañ ko ndax xam nañ cent mille nan def ba am ko. te buñ la waxee ni la da koy multiplier ba nangam mu doon milliards. da ngay xam ni lii du ay caaxaan. te dañuy liggéey ci secteur yoo xam secteur u BTP lañ xam nañ milliard lu mu mën ak lu mu mën hmm. kon bu ñu la nee nangami milliard def nañ ko ci dëkk bii hmm. da ngay ba mu yàgg nga ni est-ce que yi ñuy wax ak ñun milliards yi ñu xam ñoo bokk yéen dama ne li ma bëgg wax mooy nguur gu bees gii li lañ la laaj man moom nguur gu bees gi moo ko doon sant ci Touba xam nga lu ma koy njëkk sant ci wàllu assainissement bi hmm. mooy liñ ci def ba dañu cee avancé waat nañ ko audité. Mhm. képp koo nga xam ne def na ci lu dul yoon. Ah, audit bi day noo xam nga man gis sa programme bi bu fekkoon mën la. Mhm. du ko continuer damay teg beneen programme. mais gis nga lee fa mu yem. Ah, mais nag loolu yàqaayu Sénégal. non du yàqaayu Sénégal. parce que li ñu beneen programme te ab programme ngi fi. gis nga programme bi ñu teg bu baaxoon. Mhm. tey du ñu dem ba pendant cinq ans wala six ans ñun la ñu ngi canaliser ci Touba. te dëkk bi tey la gën a sonn. te bokk na ci zone yi gën a sonn ci ci ci inondation yi xam nga leen ko yóbbee mm-hmm. refoulement mm-hmm. mooy ndox boo nga xam dañ koy pomper muy ñëwaat ci seen kaw mm-hmm. est-ce que loolu xam-xam la tey bu fekkee yow yaa ngi déplacer problème di di ko kanaal yi yi dafa noppiwut ba noppi ñu raccorder ko ba pare raccordement yi ñen ñoo ko def raccordement yi ñen ñoo ko def mais fi lañ ko fekk. bi mi dama ñaata def nañ def nañ def nañ deux mois mu soog a taw. dama ni xaar ba nguur gu bees def nañ deux mois mu soog a taw. war nañoo prévenir waajal nawet bi xam li nga xam ni mooy taxawaay bi biñ ci war a ba askan wi. ndax ndax benn li ma wax léegi rek keroog sëñ Fall mi ngi wax fii. ñu fi teewoon Touba Ca Kanam nu ñu mënee waajal nawet bi. ba pare nguur gi waajul nawet bi. nguur gi xam nga nguur gi bu fekkee dañ leen di waajal nawet bi. Mhm. loolu amaana mën nañ ko wax waaye ñun ñi nga xam ne gis nañ li li état bi def ci nawet bi mhm. wax dëgg fa yàlla. musuñu gis état boo nga xam ne amal na fi taxawaay bu toll nii. Hmm. waaw. fan xam naa ni département de Mbacké wala benn département au niveau di Touba. lan la. mboolem li nga fi dégg. Hmm. muy machine yoo nga xam ne ma ngi fi doon tàkk. Hmm. à quatre vingt huit pour cent wala quatre vingt dix pour cent. ci état bi la. yéen plan Orsec ñuy xaar ngeen déclenché ko bu yàgg ba léegi déclenché woo leen ko. plan Orsec plan Orsec plan Orsec plan Orsec bu amoon njariñ. bu amoon njariñ. ñu continuer ko ci booba plan Orsec ñaata at la fi nekk. plan Orsec nag saa bu ab cas bi critiqué rek lañ koy génne. dama ni mooy génne seen. dama ni plan Orsec li ñu liggéey ci inondation bi. Hmm. même plan Orsec bu ah, hmm. la pendant vingt cinq hmm. la ñu doon def. man de musuma ko gis ci plan parce que chaque jour ñu ngi woon ci terrain bi. di joxe ay machines. deuxièmement. ndox yi nga xam ne dem na bay déborder. Mhm. ñu wàcc fa ak seeni machine di ko pomper seen bopp. Mhm. waaw gis naa ñu xuus ba xuus ci ndox yoo nga xam ne dama naan ñii ndox yi ñuy xuus sax est-ce que mhm. waaw li ma gis état bi def ko ci. musuma gis mbënd am taxawaay bu toll noonu état am ko. plan Orsec xam lu mu doon def plan Orsec. da doon fekk situation am nit ñi génn seen kër yi. waaw d'abord wuti ay kër dugal ci nit ñi. jël école yi dugal ci nit ñi. wut ay bâche dugal ci nit ñi. ba pare jël leen à charge euh, dédommagé leen. en parlant defar defar seen jafe-jafe foofu. fii nag fii nag lañ fi gis fii lañ fi gis mais Dakar gi. Dakar gi ci bànn. mais Dakar dafa amul école. dama bu amul école ngay base boo doon base fii université bii. mën nañ fa def ay base. université bi dañ ko joxe. ani université bi joxe nañ ko. dañoo joxe lan. joxe nañ ndax joxe nañ université bi pour ñu baax ko. ndax na ko pour loolu. dama li ma laaj rek mooy Touba Ca Kanam Touba Ca Kanam bu mënee dem jël benn espace. waaw cent euh, euh, cent mètres carrés. waaw benn hectare. Mhm. def fa ay ay ay ay abri provisoire pour dalal fa nit ñi. waaw état ko ko dàq. xam nga tubaa dafa doon lu compliqué. Mhm. Mhm. parce que tey. Touba li fi état di xuus-xuus dafa am fu mu fi yem. surtout état boo nga xam ne bi mu installé ak léegi. 6 mois pendant 7 mois ci la toll. te Touba ku ne xam na ni Mourtala yaa ma gën a xam li fi am mooy. des fois état jug sax bëgg fee def dara. maanaam day ragal ba keroog mu di ko def. ñu ni ko waaw walla déet. Mhm. ndax benn am na ñu fi nekk ñoo nga xam ni. Mhm. na ma yàlla jégal bëgguñu dëkk bi. Mhm. bëgguñu lu baax yéenewuñu dëkk bi. tey bu état jugoon. am programme bi gën a baax ngir dimbali dëkk bi. bu fekkee mënuñ cee mos 10 francs lu bon lañ cee wax ak lu ko yàq. bokk na ci ndox mi tey Touba coono yi mu nekkoon ak métti. dem na ba ci biir daanaka. politiciens yi ci duggoon. Mhm. doon ci politique est-ce que loolu loolu foofu la Touba toll. Mhm. mais ñu dool gis ñu wër leen mooy ñi ñuy gis ci télé yi. Mhm. ñuy toog ci wetu sëriñ si. naan diw nangam diw nangam diw nangam. lool dafay jóg. Ah? li ñuy wax dafay jóg. damañ la li li ko fi ndi xam nga bu baax li ma lay wax. waaw mooy lan. ci benn waay boo nga xam ne daf fi indi ay machine ñu commencé daanaka dem ba mujj daanaka dëkk bi daanaka comme ndox mi dañ ko war a politiser. Mhm. te askan bi dañu sonn li ñu soxla mooy nit ku leen jigee mhm. jàppale leen jafe-jafe yi ñu non man man sax du ma nekk ci ci parce que man wax dëgg fa yàlla ñooñu maanaam Barthélemy Barthélemy Dias defal ndànk Barthélemy Dias dama ni yéen la mënoo leen a def lu weesu sant ko gërëm ko ndax Barth diw rek Barth li mu def mooy inondation am na mu indi ay machine mu indi ay machine ci biir dëkk bi pompe ay pompe gis naa sax ñoo xam ne ñaan machine baa ngi dafa panne te alors que machine yi fi indi def na liggéey bu extraordinaire même bu doon benn machine boo xam ni un mètre cube bu dong la la génne gis nga man ko jàppale gis nga man képp koo nga xam ne jàpp nga ci ndox mi sant la gërëm la yaa yaa wax benn waaye bu ñëw indi ay machine xam nga xam nga tax ma wax ko mooy <laughs> dem nañ ba mujj daanaka uh-huh. Touba ci kanam li liggéey ci ndox mi ndax Barthe moomu ñu wax liggéey na ko ci ndox mi. Mm-hmm. mais def na dara. ndax Pastef les patriotes du Sénégal gii nga xam ne ñoo nekk au niveau du Touba liggéey ci ndox mi ndax Barthe liggéey na ko ci ndox mi. Pastef li ci liggéey. Pastef li mu ci liggéey. waaw kaay wàccal ci terrain bi. Ah, ci liggéey <laughs> eh, boole ko équipe yoo nga xam ne ñoo koy taxaw. Ah, attends moo indi 400 400 machines. waaw wala état du Sénégal moo indi ci turu Serigne Cheikh Thioro Mbacke. Hmm. moom Touba. Hmm. moo fi indi quatre cent et central ba pare. Cheikh Tidiane Dieye ñëw fi indi ay machines. damay Maymouna Dieye ñëw fi def fi ak don yi nga xam ne def na ko mu fi indi ci kanam ni. mais état bi dafa ñëw <laughs> li li ci sa waay. mais Touba ci kanam comme comme teg na benn pas. xam nga hmm. Touba tamit ne daa doon dëkk bu compliqué. am na ci loo nga xam ne sax man ak yow tey su ma bëggoon ñu débat fii yaa may njëkk wax ni ma génn ci ndax dafa sensible hmm. Hmm. parce que léeg-léeg euh, liñ naan nga nga fekk loo nga xam ne amaana jafe-jafe mën naa am hmm. mën na ci am waaye da nga koy muñe njariñ yi mu am ak lu mu néew néew ndax soo soulevé la ca nekk buñ ko xamee la muy yàq mooy ëpp te la nga ci doon ama ko su njariñe ko su néew man nga koo utiliser gis nga Touba ci moment yi mu toll ci ndox mi képp ku ci xuus da xam ne toll ci politique mm-hmm. bi ma déggee ñu naan Barta Barta dama dem ba mujj ay ree dafa ma jàpp mm-hmm. ndax man boobu maa ngi ci terrain bi mm-hmm. maa ngi ci terrain bi Barta li mu fi gis naa ko gis naa li fi état bi indi gis naa li fi Touba ci kanam def gis naa li fi waa def gis naa lépp mais su ma demee ba mu yàgg dégg mel ni benn Barta li mu jaat wala maire maanaam ville de Dakar. Mhm. dañ ko dañ ko yëkkatee Dakar indi ko Touba. Mhm. dama dem mujj ay réer dafa ma jàpp. mais lim def laa ne bu dee benn bërigo ndox la pompé. yéen jërëjëf ngeen. xam nga man loolu mu def mënoon na ko bañ a def xam nga man loolu mu def li tax ma mhm. naan ma naan ci jërëjëf mooy. ginnaaw ne ñoo koy tax parce que dama campagne pour mu falu. wax ngir mu falu. dugal ko ci coalition boo nga xam ne moo ko gunge ba yóbbu ko maire wu Dakar kon awma lu ma naan ko jërëjëf ndax la mu def man dama cee bokk waaw kon Bartha bu ñu koy jaay dañ koy jaay keneen waaye ñun ñoo ko tegoon ci suñu kaw yëkkati ko ba ñëpp gis ko. Mhm. kon kooku ñeneen lay gondi waaye du ñun waaw. <laughs> sëñ Fallou jërëjëf eh, dégg nañ eh, am na solo macha eh, allah sëñ Cheikh yaakaar naa gis nga dëkk bi ak mhm. inondation yi nga xam ni mhm. mi ngi fi yéen jël ngeen seen wàll donte kenn joxagu leen ay ndàmpaay mooy li nga xamante seen wax dëgg loolu tamit ñu ci ñu koy rafetlu ndax état du Sénégal tamit am na taxawaay bu ñu ci am junnatu itam muy kuréel gi nga xam sëñ b ko sos muy Touba ca kanam ak isib tarxe yi ak mairie bu Touba. Mhm. lëkkaloo def liggéey bu am solo ba jamono ji mhm. euh, magasin yi nekk ci dëkk bi ñoom itam ñi ñaa dem di yóbbu seen ay bon leen seen ay ndimbal mhm. muy muy lu am solo tamit ban jàngat ngeen ci am waaw loolu de muy ñaar inondation yi jafe-jafe askan wi dund waaye apport bi kilifa yi def ngir saafara ko waaw loolu de lu am solo la ndax nit bu nekkee ci jafe-jafe euh, nga wallu ko loolu day yellu lool ci dëkk bi ndax dëkk bi loolu la yellool kon loolu ñu ngi ci eh, jaajëfal bu baax ndax ñun moom ay comme ni ma la ko waxee rek ay taximaan lañ mm-hmm. yoo xamante nii li ñuy soxal daal ñun ba soxal ñu mm-hmm. mooy ñu gën ñoo taxawu mm-hmm. gën ñoo jàppale gën ñoo dooleel dem nañ ba def benn coalition boo xamante nii euh, ñun taximaan yi ñoo ko def muy fédération fédération fédération ndax day da daan dem ba xamante ni luy dugg ci biir dëkk bi ñun taxi yi dañ koy séen rek mais du jaar si ñun ñu ne nag bu ñu defee benn mobilisation boo xamante ni. Euh, mbooloo la ñuy doon. bu ko defee luy dugg ci dëkk bi ci wàllum transport. ñun war nañ cee mën a gis bopp. ba tax ñu taxawaloon benn fédération muy euh, bi PAM Ndong jite nga xamante ni garage yu bari ñoo ci bokk. li ëpp ci garage yu mag yi ci Touba. ñoo ci bokk bokk nañ ci bokk na si mu mel ni garage janatu euh, Jannatu. hôpital ba. garage su Ndaamaatu. garage Daaru ak Madiyaana. ak euh, garage yi xamante ni moom lañ gën a kii ci Touba. Mm-hmm. ñoom ñoo bokk ci arrestation muy mbooloo moo xamante ni mu takku la. Mm-hmm. kon loolu dañ ciy profité. Mm-hmm. di ci lancer waale message. ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal terrain bi. comme ni ma ko waxee rek képp ko xamante ni yaa ngi teg wàndoom. Mm, ci nga bokk. kon ñu ngi leen ci lancé waat bu baax a baax pour ñu mm. gën a kii ci mm. loolu xañ na mm. sax émission bi loolu taxu koo jóg mm-hmm, waaye dañ ciy profité waale rek yéen jàppale gi ngay wax nii jàppale gi kenn yu bari ay oto ay particulier yu bari oto dox ci courant xawma loolu ba xam yéen yéen a ciy démarche am na ay oto yu ñu proposé woon muy euh, kii iranien yi mm-hmm. doon nañu ci proposé ba woon ñu réunion ba waxtaan seen ñun mm-hmm. mais dafa mel ni daal euh, liñ ci tegoon xaw na diis ci ñenn ñi. Hmm. li ñu waxoon ni moom la ñuy joxe caution. Hmm. daanaka dañoon dañuy dimbali chauffeur waaye day mel ni. Hmm. Euh, dana diis ci am na chauffeur yoo diis na ci ñoom pour ñu joxe cotisation boobu. pour ñu mën a am ci oto yooyu. waaw. loolu daal jafe-jafe kon oto yi lan mooy seen jàmbat kon. lan mooy seen njàmbat ci ci ci li nga xam ne ñu jàppale taximan yi tey. waaw maanaam liy jàmbat li mooy li nga xamante ni dañ koy jàppale taximan ñu oyofal ko. Mm-hmm. ba nga xamante ni képp xamante ni yaa ngi ci biir Touba. Mm-hmm. donte dañ ñëw dañu ko oyofal da nga da ci mën a am. Mm-hmm. mais commerçant yi ñooy ñëw jël oto yi. sa force yi ñoo leen koy fayal. kon loolu war nañu si war nañu jàppale loo xamante ni tey. Mhm. danañu ko yombal ba chauffeur sépp mën cee am. Mhm. loolu bu ñu ko defoon danañu danañu dimbali. danañu mhm. danañu tàqali ko am na walaan. dëgg la. tubaarkàlla jërëjëf sëñ Cheikh. ñu ñëwaat sëñ Fallou. yaakaar na inondation yi moom. Euh, jafe-jafe bi yaatu na yaatu goo xam ne ñàkkul ne am na loo xam ne bëgg nga koo wax ndax maa ngi la yaa ngi doon ma dog la ak jafe-jafe yu tar yi nga xam ne askan wi yaa ngi ko doon tàmbali wax yoon yi ni muy bindoo ak ni muy yàqoo ñàkk wàccaay wi ak ni koy doxalee xam nga tey ñun dañoo baaxoo. bu mm-hmm. jafe-jafe amee ñuy waxtaanee jafe-jafe. Mm-hmm. waaye fi jàpp nañ ci solution yi la ñu war a dem. Mm-hmm. Mourtalla ndax tuubaa daa mérité wul. ñaari maire yi ba ñett. moom ñu def ko découpage. Ah, loolu mas na maa dégg maire bi. maire laa wax de monsieur le mas na maa dégg mu ne dañ koo war a def lu mu néew néew waaw ndax Touba dégg mboq kan moo war a jëm ci. ci loolu Mourtalla ndax Touba daa mérité wul. li nga xam ne moo am soxla mooy ña fa nekk diine mm-hmm. ji mm-hmm. imaam ya géré ko mm-hmm. état centrale bi ñu bàyyee ko dëkk bi mu liggéey ko ndax Touba daf ko mérité maire bu ñu fi teg ñu dem élection pendant cinq ans bu fekkee li ñu bëgg defal nga ñu ko ñu tegaat la fi. Mhm. bu fekkee li ñu bëgg amuñu ko ceew yow ñu jëlee la fi. Mhm. waaye maire boo nga xam ni. Mhm. chaque instant. bu ñu demee élection bulletin blanc jëlee ko fi. ñu continuer tegaat ko fi moom sëyu force la. <laughs> beneen bi ci topp mooy Mourtala. <laughs> ndax man dama ko wax ay at ci ginnaaw yaakaar naa. yàgg naa ko wax TH TV laa ko njëkk a waxee. mooy ci mbënd mu njëkk ma ba suñ mën taxaa génne woon xaalis ma ni. man de gis naa ni sëriñ bi ñu ko wër. xaalis bi muy génne. ñu di ko joxe. Mm-hmm. man du damay gis ni lu baax la. Mm-hmm. lu am solo la ci jitu mm-hmm. waaye dama xam ne Touba li mu am ci àll. tey Ngiraaneen xoolal ni mu toll. tey bu fekkoon ni woo nañ benn entrepreneur jox ko ni ko suuf bii lañ la jox jox nañ la fi 1000 kër. liñ bëgg mooy 1000 kër yoo nga xam ni. ñu ko defal ci beneen zone bu baax. moo xam bâtiment wu 20 millions la. wala 15 millions et quelque. boo paree ñu fayee la suuf si képp. même gëm naa ne bu ci ndàmpaay amul ak suuf soosu ni mu valoré su paree dina fa jëlee ñooñu dëkkal leen ci yeneen kër wala ñu def ket boo nga xam ne quatre milliards la wala deux milliards et quelque ñu tabax ci ay cité ñi nga xam nekk nañ fa nga xam ne xam nañ fii ñi fi nekk mëntuñ ko defar ñu jëlee leen fi ñu raser terre boobu mbooleem lii dajee ci ndox ci dëkk bi comme xam nañ ni foofu mooy capital ndox ñu dajale ko fa pourquoi ñu jéem a créer benn dex bu ndaw boo nga xam ci biir dëkk bi sax cent ans ci kanam. dëkk bi man di ko nooyee. parce que dëkk bi jigéewul géej. jigéewul dara. lu tax mënuñoo liggéey ci loolu. dëkk bi benn nañ la am na problème ndox mum naan. am na problème mu ndox muy ball ci suuf si. am na problème ndox boo nga xam ne day taw. ndax ñett yi war naa mën a daje ci dëkk boo nga xam ne nit ñi ñu am xam-xam ñu ngi fa yeewoo. dëgg la léegi ñu continuer nekk ci wooy wooy dañu war a dimbali. damaa gëm ni loolu dañ cee war a daje. loolu nag li ñu ci jëlee mooy lenn sëriñ si. Mm-hmm. seere diine ji. li nga xam ne mooy suñu dundin. Mm-hmm. ak état ak ak ak li nga xam ne moom lañu soxla population bi yëpp. Mm-hmm. ñu jël ko bàyyeewaat ko état bi. Mm-hmm. ndax loolu wóor na bàyyee na ko ci état. waaw xam nga li tax man la wóor na mooy. yow leer na la ni. état du dogal ci biir. moomeelu jàmbur loo nga xam ne neexu ko. comme li nga xam ne yow yaa ko moom sax ci lay ñëw ba ci yow ni laa li nga xam ne yaa ma ko dénk. nii laa ci bëgg a doxee sàkkantuma ak loo nga xam ne titre foncier la. ndax Touba bu agsi fi mu état yi fi jaar am na lu ñu fi def. mais tey booy xool deuxième capitale bi nga xam ne moo nekk ci Sénégal. tey amul autopont. amul tali bu baax. maanaam bu ñu naan la bassin d'hydratation yi am sax ñu naan la trois au quatre. ay forage fi nekk pour ñu naan. est-ce que loolu tey mooy mooy mérite ci ñun. te Touba romb na foofu. dama ni. Touba ñi fi nekk nañu fay taxi yi ñu war a fay. ñu dajale ko yóbbu ko. trésor public. gars yi ñu ngi fay kat waa dëkk baa ñu ngi fay. man sama place la ma gars yi fekk ma fay. nga fay ñu bari fay nañ. léegi loo bëgg a di. saa waay nee na ñu ngi fay. xam man su ma déggee ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni mairie bu Touba. Ah. dana dana dana natt lu budget 4 milliards et quelque jàpp 7 milliards. Mhm. te tey seeni recette bu ñu ko xoolee. Mhm. mënuñu am 2 milliards yu topp. Mhm. léegi loolu lan mooy loolu. te dëkk bi li fi nekk yow. da ngaa bëgg a wax da ngaa bëgg a wax li li li li li bi wax ni état bu njëkk dañ ko doon def li ñuy wax dañ koy am bokkute li ñuy am. Hmm. ñu dal. Hmm. ndax tey jii li ñuy wax ni ñoo ngi koy am bu fekkoon ñoo ngi koy am di ko delloo ci dëkk bi kon dëkk bi romb na fii. Hmm. chaque année ñu ñu concentré wu ci benn un kilomètre kese defar ko. mu baax ñu xam ne état mu ngi def dara. ñu xam ne maire bi fi nekk mu ngi def dara. mais yow wax ma tey dëkk bi ginnaaw à part Touba ca kanam. bi mu commencé amal ay action maire bi lu mu fi naan def. am ay. lamp ay lamp ay ay sant ay kii nu mu tuddati ay bi ñaata maire ñaata at la fi nekk. poste ko boo nga xam ne defar marché bu baax mënoo ko. Mhm. mënoo loo man marché Ocass bii ñaata yoon lañ ko yàq defaraat ko. Mhm. li ci yàq ci àll anam. di lakk ay maintes fois maire bi mënul taxaw sax defar marché bi. Mhm. kon kooku bu la nee naa defar dëkk bi day wax lu ko neex jumaa ji nga xam ni mooy central dëkk bi ku ko mën la defar mënoo defar dara ci dëkk bi jumaa lu ci meer dama ni maire bi lu mu ñàkk ñàkk ñàkk lu mu man defar jàpp naa ni def maintenance ci li wër jumaa ji kese mu baax yow maintenance jumaa ji bu setee li wër ji bu setee mm-hmm. bu setee mm-hmm. xet maa ko setal waaw loolu moom ci laa bëgg a wax sax waaw jumaay Tuuba saa bu setee waaw xidmatul xadim ñoo ko setal waaw ñoo fay bale guddi ak juma gune bu leeree. bu leeree bu leeree. Hmm? Touba ci kanam a tax dëkk bi leer. Hmm? bu ndox mi jugee ci dëkk bi ay ban volonté ñoo futti ko dugg ci ndox mi kon wax ma lan mooy liggéey même nga am ay poste de santé. yow ñi gis ci terrain bi ñu ñuy bale toujours am na ñoo xam da ne gis ñuy bale ñoo xam. xam nga ñooñ sax bu njëkk. Hmm? bi ñuy soog a démarrer doon nañ bale suuf muy set. léegi mbalit la ñuy dindi tali yëpp suuf la. Hmm? li ma la wax ni jaaral jaaral fi ñu bale mais talib suuf bi nawet bi moom talib mënuñoo bañ a. avant nawet laa la wax. Hmm? avant nawet man maa ngi ci dëkk bi. yow daal ci gàttal li nga ci gàttal li nga wax mooy ñun amuñu maire. déggoo li ma la wax. Ah. man dama naan suñu digg ak maire Touba mariage forcé la neex naqari ñu di ko muñ waaye amuñ ci lu ñu bëgg amuñ ci lu ñu bëgg. sëñ Fallou Mbaye sëñ Fallou Mbaye yow dafay ragal waa mairie waa mairie dinañ ñëw dinañ xaar kalaasu kalaasu nu mu tuddati gi bàyyi daaro gi doo la xaar ci bunt bunti sama diya mais nag euh, sëñ Fallou Mbaye nag dëkk bi ak ni mu toll euh, tey ñu ni mairie bi am na budget cinquante milliards ñu ni Touba ñu ni mairie budget quatre quatre milliards loolu taux bi dafa sori est-ce que mairie bu Touba am na ay recette hmm. mais recette yi yow recette yi. xam nga taximaan yi nee nañ. dañ fay ñi ngi fay waaw. borom sare dañ fay waaw borom place nee dañ mais ana xaalis boobu. ah xaalis boobu moom la ñuy dugal ci li ma la wax léegi. fan ko dugal. màggal yeeg yenn yenn tuuti yeeg yooyu amee màggal ku la ko sa bopp ak say loolu maire da ko jooytu de. dama maire ne ku am màggal wax ko maire te gisul maire. ca baas ba la koy wax. dal ci kaw maire. waa léegi ma laaj tamit dëkk yëpp ndax maire bi ñu ko fiy teg yee taxoon ñu teg ko fi wala population màggalu Touba gi état du Sénégal est-ce que du ñëw ah màggal gi màggal Touba di gagné moo ëpp li mu financé mhm. Mhm. ndax keroog bu ma ko déggee mu ni xaw ma 300000 la def carburant xaw ma mhm. bis boobu dama toggoom yàgg ma ni ma ni ma ni ñii est-ce que est-ce que 300000 la def carburant ci lan màggal gi yëpp am na màggal gu xam ni fii la toog ni nangam laa joxe ci carburant li ci des foofu laa ci mën a yem ci préparation ñaata yoon la ñuy dem CRD wala CLD lañ fay wax ba pare yow ba pare ak lii nekk ci dëkk bi ndax ñoo bokk. Mm-hmm. maire moom man wax dëgg fa ak su ma la waxee dëgg gisuma benn taxawaayam ci dëkk. Mm-hmm. man daal li ma gis mooy lu fi nekk la. Mm-hmm. sa doom juddoo ñun la forcément fa ngay dem am kayit. soo fa demee yóbbu fa déclaration. des fois nga toog ba fàtte. ñu soog ni la génn. boo amee problème mu kayit xëy fa. boo fekkul gars yi xam ne da leen neexal ñu lijjanti la doo lijjantiku. maanaam man daal maire wax dëgg fa la benn bâtiment la bu fi nekk. mag ngi encaissé. di fay ñi muy liggéeyloo. amuñu problème loolu laa yow mën na mii nga gis maire ak taxawaay yi mu ci def. ban taxawaay la ci am. maire indi na ay pompe ay pompe ñaata pompe la indi. xaw man ñaata pompe la. maire moom mais indi na ay pompe maire moo war na jiitu te moo mujjee. Hmm? xam nga première bu jël ndaare. Hmm? kooku du ndam. junnatu jun junnatu bi sëñ bi ah. maire yi la boole ak. Touba Ca Kanam ak. dama eh, wax la sax ci junnatu parce que hmm? bokkoon nañ liggéey boo nga xam ni au niveau di Guédé la nekkoon. man la ma fa gis. bokk na ci li ma gënoon a metti. Mhm. jeune boobu yaakaar naa sax xam naa kañ fa tegoon. Mhm. ndax ñoo fa bokkoon di xëy. Mhm. mais oto bi nga xam ne moo fa nekkoon di jël carburant mooy groupe bi fa nekkoon doon pompe ci buntu ko Cheikh Baski. am na jour ba nga xam ni avant 13h la fay ba 19h problème carburant la am. an xaalis junnatu. waaw ah, du jamono xam nga xam nga <laughs> courant bi. nga may wax <laughs> comme ko ci dëkk bi. comme si bu maa ci dëkk bi. ci groupe boo nga xam ne dafa taxaw ci kawam ndox. Mhm. ñu ne la ndox mi lañ bëgg mu jugee fi. Mhm. mu toog 4 heures wala 7 heures du temps war a tàkk tàkkul nit ñi nekk ci biir ndox mi. ñun la lu tax ñun la carburant te xaalis bi mu ngi de woon. du yoon loolu loolu. bari na yoo nga xam ni ma ma ngi ci boo wàccee daje ak moom. Mhm. mais da naan. comme sëriñ bi moo ci joxe nañ ko bàyyi mu dem junnatul junnatul seen seen ñi nga xam ni magasin yi nga xam ubbi nañ ko ngir ñuy dimbali ñi nga xamante ne ñooy askan wi tey jii dem naa ci benn magasin askan wu bari ñu nekk fa ñu di leen jox ceeb bi diw yi ak. xaalis bi ñu dem ba yàgg xanaa ñu dem ba yàgg xaalis bi jeex. ñu dem banque wutaat xaalis indi jàpp naa ni jàpp naa ni loolu nga xam ne ñoo yor waa distribution bi eh, di di def loolu di jox ceeb bu ceeb jeexee ñu dem wuti ceeb bu diw jeexee ñu wuti diw kon carburant bi ñu ko yor tamit jàpp naa ne bu jeexee dañoo war dem mhm. askanu Touba mhm. dimbali leen fi mu surtout ñu nekk ci mbënd bi mhm. di jox leen ceeb di jox leen diw xam nga mooy lan àll bi mhm. nañ fa wuti ay kër ñu mhm. defar ko ba mu baax ñu dëkkal leen mais loolu état la war nag sëñ Fallou Mbaye wax rek mais dañ koy sollicité parce que dëkk bi état sañu fa dogal dara ku koy sollicité ji du nee nañ mhm. ñëw tabax fi ay école te tàggoowul ñu xëy sëñ bi nañ tëj école kon est beneen état am na fitu ñëw engagé dara ci dëkk bi mais état na ñëw ne dama bëgg ko bëgg nañ nangam état xanaa xanaa xanaa jabootewut askan wi. dama ni état moo jaboote askan wi waaye Touba lépp lu fi nit def dafa am foofu yi tàmbalee. am ay député yu ñu teewal fii am ay politiciens yu ñu teewal fii. comme <laughs> attends ku mel ni sëñ seex Thioro. waaw nga xam ni. gis nañ ko barki dem mu indi ay moto pompe muy lu am solo. gis naa ko yëggul dara mu am taxawaay bu am solo fële ca Ndindi ca hôpital ba yóbbu ca poste de santé ba yóbbu fa ay lal ak yeneen ak yeneen muy am solo acte yi nga xam ne sëñ Cheikh Thioro mi nga xanaa doo ma wax doo ma wax ne jafe-jafe Touba sëñ Cheikh Thioro wax ko état bi Touba ñaata député ñoo fi nekk. fi département bi cinq la bari na de. tey daanaka coow li mu bëri bëri suñu Cheikh Thioro rek ngay dégg. kon na ñu joxoon suñu baat. ngir ñu dem tooyal ñu assemblée. ndax lañ leen fa doon ñu ngi koy def. keroog bañ leen falee attends du sëñ Cheikh Thioro dong de. kan la Cheikh Abdou dama koy gis muy def ay action muy def ay action waaw ci dëkk bi gis man gisuma ah kay. man man Cheikh Abdou laa njëkk a gis sax. dama ni attends Cheikh Abdou laa njëkk a gis dama ne Cheikh seex Cheikh Abdou laa wax hmm. ba mu dalee nekk député ba léegi hmm. buñ demee ba tey su turu ëpp ko taxawaay ci Touba dama ni war naa xoolal boppam. non sëñ Cheikh Thioro mënu koo bañ a ëpp taxawaay parce que sëñ Cheikh Thioro dafa nekk parti au pouvoir. ak sëñ Cheikh bi ñuy dégg turam opposant la woon mi ngi mel ni Pastef ji rek xaar rek Pastef laa bi muy ëpp sëñ Cheikh la bi ñu koy dégg au niveau dama ne Pastef xaaral ma rek Fallou Mbaye loolu layeen la Pastef gii nga xam bi mu ñëwee nga xam ne amaguñ sax benn député mais ñoo ñoo ñoo ëppoon coow ñoo ëppoon coow ñi nga xamante ne ñoo nekk au pouvoir xam nga Pastef mais loolu nag leneen la bokku non non xam nga Pastef mm-hmm. Mm-hmm. dafa am ci lu mu nekkoon mooy mm-hmm. di xool fi yàqu-yàqu yi dëkk bi nekk di ko mais sëñ Fallou Mbaye solution askan wi diglu rek askan wi lépp ci seen jafe-jafe ñu leen koy waxal kon ki lay waxal sa say say jafe-jafe xam li ngay dund ànd ko ak yow kooku noo def jigéen ko jafe-jafe yooyu duñ ko wax état bi mu ko loolu dañoo romb di ci wax. Mm-hmm. parce que ku ne gis ne état bi programme yi nga xam ni. Mm-hmm. naal na ko mu jëm Touba. Mm-hmm. li ma ci wax mooy yàlla nañu yàlla musal ci. ñi nga xam ne ñoom lañ doon wax naan bu ñu waree am hôpital Touba. mu nar a jëriñ Touba bu ñu ci mën la am dara fànq ko. yàlla nañu yàlla musal ci ñooñu. amin waaw waaye état bi naal yi nga xam ne am na ko au di du moom yàlla na ko réaliser. waaye nag Touba mooy dëkk bi nga xam ne. dégg nañ ko ba tàyyi ñu ni war nañ fay indi hôpital mhm. wala projet nangam lancé nañ ko fi mhm. dem ba ci biir ñu xëy ni naax na saay mhm. ñu ni lu tax ñu ni ah xamuñu loolu nag la ko gàllankoor bari na ci loo nga xam ne ci dëkk bi xam nañ ko waaye am na loo nga xam ne du respect du ay ci teggin ñu di ko wax waaye dama ni ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk ci dëkk bi ngir seen intérêt bopp. Mhm. nañ ci teggi seen tànk. Mhm. état bi nag bu bëggee liggéey. waaw fa lu may doo ma wax doo ma wax nag état bi yan solution lañ teg. solution yi askan jafe-jafe yi. yow ñaata at ngay jooy ci ci problème ndox. ndoxu Touba. ndoxu Touba. forage forage Oumoul Khoura dafa paan. xam nga xam nga wax nga forage Oumoul Khoura dafa paan. xaaral ma wax la avant màggal. waaw avant màggal. waaw laa waxoon ni. Mhm. lu mat. kees sasadoo ci Touba dañoo paal. waaw ba tey kenn defaru leen. ba kenn def hmm. tey kenn defaru ko. ba tey kenn léegi programme bi nga xam ne état bi fi nekk teg na ko ci hmm. ndoxum Touba. Hmm. yow loo ci wax. programme boobu ay wax la pour l'instant. non xam nga. xaar rek ay xaar boo xam ne état bi ci ay wax la tàmbali dama ne ma koo wax. waaw d'accord ñu sotti ñëw réaliser ko dama ne état bi li mu teg comme programme ci ndoxu Touba. yaakaar nañ ko ñu ngi koy xaar. waaw jeex na mais loolu loolu solution. bu xaw a sori la. xam nga man mais am na loo xamante ni sur le champ mën nañ ko forage Oumoul Khoura dafa pan lépp une semaine lépp 15 jours a ngi nii. yow man dañu am jafe-jafe ndox. am na jour boo nga xam ne. waaw gis nga gis nga ndoxum Touba moom ci forage yi. pour mu mm-hmm. régler. Mm-hmm. bu fekkoon da ma ci laaj solution ma wax la lan moo ko mën a régler. Mm-hmm. tasuma war amati. génn fi génn fi effort. bàyyee hydraulique ndox mi kese. te neexul a dégg. ndax tey bu fekkee dañ ñaata at ñi ñoo suñ ndox. jafe-jafe bi ñu am mooy. boo ne ma hydraulique hydraulique nag na nga xam ni 30 ans ñi ngi ci dëkk bi. ñi ngi ci dëkk bi ñi ngi waaw voilà waaye man li may xam naa mm-hmm. mm-hmm. ndax ndax. Mm-hmm. damaa gis ni bari na dëkk yoo nga xam ni bañ ko yoree ñoom dong ñu nekk fa. amuñ benn jafe waaye ndoxum Touba tey boo nee responsabilité bi. nga dem ci maaw. muñ la demal ci effort. nga dem ci effort muñ la hydraulique. comme laxasoo googu am na ci. maaw na dem bu dee daayira day jëbbali ji mu dajale xaalisam dem jëbbali ji. effort bu fekkee day surveiller wala dara. mu dem ci ñun dëkk maaw maaw sëñ bi sant leen lool. maaw sañ dañ leen waaw ñu taxaw réseau bi. waaw di defar bën bën yi. waaw fa ndox mënta àgg ñu fexe mu àgg fa. waaye sëñ bi moo leen waaye district xaaral xaaral dama ne pour togg ndox mi. waaw OFOR moo ko géré. waaw yi paan. waaw moo ko reeta. waaw OFOR démembrement lu ëpp lu mat 15 sata d'eau. OFOR lu mat 15 sata d'eau. depuis depuis ay at. la fi am. waaw ah, muy Bamba muy Bamba kooku ku mu yor sam ndox yow kon am nga problème. est-ce que eh, est-ce que loolu état bi waru cee jël ay matukaay. loolu loolu pour yokk yokk personnel bi xam nga loolu moom. Mhm. loolu moom dama dama gis nii maa war a xamante li tax ma la koy wax mooy. Mhm. da wax ni sëñ bi leen a fàttaloo ay bën bën. Mhm. man gis naa ni. jaayoo ndox lañ gën a mën ci fàttali bés bën bën. day jaay ndox ndax seen forage bii jaay ndox. man de wax dëgg fa sama koñ band yi band bu jeex ñu duy beneen. te la fa nekk ëpp na 10 la te ko. oto yi nga xam ni mooy servir mbànd yooyu mm-hmm. gisum mu pan mm-hmm. te oto yooyu ñoo gën a seer pompe mm-hmm. li ñuy xëy di lakk ci carburant moo gën a cher benn groupe boo nga xam ne courant dafa coupé ñu war a remplir ndox ma ñu fexe ba foofu am am am am am am carburant lépp ci groupe bi dañoo paan waaw Cheikh Tidiane Dièye yéeg ko de dama ni ci benn lépp ci groupe dañoo paan lépp ci satado yi dañoo paan li ëpp ci réservoir yu mag yi duyee ndox mi dañoo paat état bi moom incha allah ci kàttanu yàlla. Mhm. maa la ko fi mu la. Mhm. mooy lim ci war a def. waaye waxleen leen ni forage amul xolaat dafa paat. waaw kon wax itam ni sànq euh, si Ibra Khoudia amul ndox. comme fii ci Géemul amul ndox. fii ci Darou na bitu Galas amul ndox. Mhm. nit ñi taw fekk un deux amul ndox. Géemul li wër Géemul ci wetu monument bi. amuñu ndox ah. ba ci hôpital bi li ko wër amuñu ndox. amuñ ndox xam nga man ba ci jàkkay Baye Ndiaye dañoo am jafe-jafe ndox ñu ngi foofu ci ci borom bee jéemul xam nga loolu lan moo leen tàqaleeku ñàkkum ndox mhm. Maam Rahmati génne ndox génne loxom mhm. ci ndoxum Touba kan Maam Rahmati génne loxom ci ndoxum Touba ndoxum Touba mhm. waaw man loolu laa gëm boobu loolu loolu loolu man loolu laa gëm <laughs> xam nga lu tax man dama dama leen déglu ay ay ay débat yu bari yu am ci biir mais su ma déggee li ñuy wax damay xam ne ay tappale moo ci am mbir bu fekkee ni ñett ñoo ko seq mën la dox mhm. kenn ku ne bu ñëwee dégage ay responsabilité nañ mhm. nañ leen fi jële jox ko kenn mu seere ko kenn kooku bu demul boobaa ñu duut ko baaraam ni ko yow la mhm. mais maa war a bu ñu waxee ñun la sëñ bi la maa war mu ngi jaay ndox ma ngi dox ndoxam du manqué ndox mi nga xam ne moom lañ ko dénk fii pour mu seeral ñu ko di manqué kon kenn nañ ko fi jële boppam la fi nekkal jërëjëf euh, sëñ Fallou ñu ngi lay <laughs> sant bu baax di la gërëm xam naa bu ma ñëwaatee ci saa boo ko laajee nag doo coono bu ma ñëwaatee solution yi laa wax lan la état a def pour jafe-jafe yi jeex. solution yi li ma la ci wax kay. lu doy la <laughs> maa ngi ñëw waxu góoma la wax bu ma ko laaj muy wër bu ma ko laajee solution mu may indi mu may indi yeneen la may <laughs> indi mi ngi wër wër la waaye léegi li ma li euh, naa jamono ji itam mm. dëkk bi ñu ngi mm. doon doon nañ dund ñàkkum ndox mu taratar mm. soob itam day wax ci ndox euh, gis nañ itam nag jamono ji dëkk bi tàmbul na ca ndox. fu baree bari ñi ngi am ndox waaye damay bañ nag fàllu may yaakaar ni état bi moo defar ndox mi wala nangam saa buñ masaan ak gàmm ba noppi ma wax ko téléspectateur yëpp saa buñ masaan ak gàmm ba noppi. Mhm. diggante boobu reete yow màggal gi sa avancement ci ndox mi. attends attends avant ma terminer <laughs> màggal gi moom màggal gi jàll moom ndox mi daa gën a pur. daa gën a màggal Touba gi jàll. loolu a dégg ndox mi daa gën a pur. maa ngi koy soog a dégg. li amoon li li li nga li xam jagoon na ba tax xaaral ma terminé ndox mi bi mu jagee ba màggal gi def dix jours ndox mi dafa jekki-jekki def karaj ñëpp ko déggandoo man laa wax nañ man man voilà zone ba ma dëkk yow zone bi nga dëkk asalem jàpp ali dafa war a saafara zone boobu li tax waroo manqué ndox ba nga am ñaari forage yu bees yoo xam ne benn bi rek bu bu tàkkee forage tàkk waroo ñàkk ndox daana fi gën a metti nag ndox mi a metti daana fi gën a metti noo manqué ndox mi ñun ñi ngi woon ci terrain bi. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. parce que ku am ndox mënul xam jafe-jafe ndox mi. Mhm. waaye demoon nañ ba am lu mu néew néew soo et quelques quartiers yoo xam ne amuñu ndox. biñ jubee màggal gi. te biñ koy jub ba mu des vingt jours ba mu desee vingt jours ndox ngi am ba mu desee dix jours ndox mi dem ñu jekk-jekk forage yi forage bu ne ñu ne paan bii paan na fii askan wi rek màggal gi jàll am mësul am askan wi dem song ji ay forage am na juróomi forage askan wi song ren màggal Touba ren rek la. kon xam naa secteur yi secteur yi euh, léegi gis nañ nag fi ni nii may wax nag. Uh-huh. amélioration am na ci quartier yu bari ñi ngi am ndox. Uh-huh. waaye nag souvent buñ gàmmoo ba pare. Uh-huh. ba quatre rajab ndox day am chaque année. buñ gàmmoo ba pare ba quatre rajab li ëpp ci quartier yi dañuy am ndox. fi ne nag liy saafara mooy Aliya ak Baxdaad foofu dañ ko saafara définitivement. dafa ñàkkoon ndox foofu moom dañu génn ci coowul ndox. fi ne ay yoo yu bën ñoo fa nekk. ñàkkum ndox mi souvent ni muy amee ci dëkk bi euh, loolu jàmbari di bëri ana ban xalaat nga ci am ak lan moo ko war a mën a saafara. waaw ñàkkum ndox mi de moom euh, lu ko saafara yomb na. Hmm. ndax comme ni ko sëñ Fall muy waxee. Hmm. Euh, màggal daana daana sëñ na nga waajal sa solution yi na ko waajal. Hmm. <laughs> da da wax dëgg yàlla manqué ndox mi daana gën a daana gën a metti secteur bi ma dëkkee muy Madiana foofu moom Madiana nag ànd taxawu Madiana waaw wax dëgg yàlla ñoom jàmbaar Madiana du état. du mairie. du du Touba ca kanam. du du du Maawu du Ofor du hydraulique. ànd taxaw Madiyana moo def trent 33 million ci ndox mi. te bi mu ko ciy def dafa ànd ak Ofor ak ak ak Maawu def ko ñu ngi may dégg. ci dana laay waxee. kon loolu ànd taxaw Madiyana moo ko saafara mais du ñoom Madiyana saa bu forage yi doxee. dañuy am ndox. ndax ñu forage yi ñoom. mais defar nañ ay tuyaux yoo xam ni fu ndox amee rek. day Madiane dina am ndox loolu nag. Mhm. bu ci kenn wax jërëjëf kenn ku ànd taxu Madiane ñoo ko def askan wi ñoo ko defal seen bopp. macha ñoom mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. ñi ngi liggéey liggéey bu am solo Madiana. Euh, ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. ndax ànd taxaw Madiana. Euh, ñun ñii ci ci lañ bokk ci biir. ma ma ma wax sax ma wax sax ndax kuy xalam. di sa jaay <laughs> ànd taxawu ma di uh-huh. gannaaw bu mu amee ñeenti at ak genn wàll uh-huh. actuellement uh-huh. man lañu ñu tabb comme président gannaaw bu fi ay président jaaree ba def liggéey bu am solo bi may wax soixante cinq millions ñu def ko ci biir Madiyana li ci kanam ñun lañ tabb comme président ñuy woo nag mboolem koo xam ni yaa ngi ñuy seetaan ak foo man a ne waxuma waa Madiyana mais ku bëgg sañ soñe wala ku sopp sañ soñe ñu ngi lay woo ci kuréel gi. ci kuréel gi ngeen doon ay ambassadeur kuréel gi. te mhm. jàppale ñu ci Madiyana ndax dañoo bëgg Madiyana gën a leer. Mhm. gën a naat ëpp sécurité ëpp ay yoon. am assainissement. Mhm. ñu pavé ko loolu lépp lañ bëgg ci Madiyana te nag Madiyana barkeele na université bi sëñ bi wax ni waa jaxal ban maskana taallumi wa mawdixal fikrati wa tafahumi mi ngi foofu centre d' enseignement d' instruction approfondie la sëñ Sambay wax bi nga koy traduire ci Madabul Fawzayni loolu Madiyana la nekk tey. ndox mu neex ma nga Madiana kon barkeel le nañ kon loolu waa Madiana la ñuy woo mm-hmm. ñu jàppaloo ñoom ñëpp mm-hmm. ci projet bi nga xam ne ànd taxu Madiana teg na ko mm-hmm. ngir génne mm, euh, euh, dëkk bi ci jafe-jafe te sëñ Cheikh ne woon na yaakaar na ne ànd taxu Madiana jafe-jafe yi Madiana yi dund ànd taxu Madiana moo ko ci génne kon ku dëkk Madiana maa ngi lay woo ci liggéey bi ñu ñëw ànd ñu ñëpp jënd carte membre yi bokk ci kuréel gi dugg ci groupe WhatsApp yi ñu defar Madiana wuutu ci Touba ci kanam waaye wuutu ci état du Sénégal ñi ngi woo ñëpp rek tàmbali ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye premier ministre am député yi bonne volonté yi ñi man dara ñëpp. bàyyiwoo leen woo ci liggéeyu Madiyana bi ñu ànd jàpp ci. nga continuer ci ci ci ci ndox mi waaw. Mhm. waaw comme noonu ma ko mhm. waxee rek noonu la demee ndax comme ah, daanaka wax bépp sax. Mhm. Euh, wax nga ko. comme ànd taxaw Madiyana liggéey bu am solo bi nga xamante ni. ñi ngi koy def Madiyana. ñu teg suñu bët ñun ñi xamante ni foofu lañ féetee ci fànn boobu. ci fi nekk nii sëñ bi moo ñu fa teg. Mhm. kon ñun am nañu wàll ci Madiyana. waaw maa ngi ciy woo taximaan ya waaw di ci woo taximaan yëpp nag mhm. képp ko xamante ni taximaan nga bu féetee Madiyana mhm. ak bu féetewul Madiyana sax ci liggéeyal sëñ bi ñor la euh, ñu ngi la ci lancé message de la ci woo ci euh, liggéey boobu ndax liggéey boobu kat liggéeyal sëñ bi rek la sëñ bi moom bëggul lu lu ku ko liggéeyal ci dëkk bi kon loolu ñu ngi ci lancé message ñëpp rek. Mm. képp koo xam ne yaa ngi féete ci fànn boobu rek. Mm. Euh, ñu ngi la ci lancé message. tubarkalla di ñàkkum ndox mi ci dëkk bi nag wax naa ne jamono ji tam naa stable. Mm. lan nga ciy wax état nan la ci war a taxawee waa dëkk bi itam wala dëkk bi itam ñu jéem a xool ne Anta Xuma daan def. ñëpp def ko ba dëkk bi itam ku ne yaa mën a dugal sas tuut ngir mu man a jag. waaw dëkk bi euh, comme ni ko euh, sëñ Fall mi waxee. Mm-hmm. dëkk bi dafa toll fa xamante ni. Mm-hmm. benn maire dafay doyut. Mm-hmm. benn mairie. Mhm. Madiane war na am mairie Darou Khoudoss war na am mairie. Mhm. bu ko defee mairie bu nekk fa nga faan fan fa nga féetee. Mhm. da nga fa liggéey. mais bi dafa benn mairie da ko attanatut. ñu ñu yaatal ko bu ko defee. kenn ku nekk fa nga féete da nga fa liggéey. bu ko defee wàllu manque ndox mi yëpp. day daal di saafaru ci côté boobu. dëgg la de. bu ko defee état tamit dugal ci loxoom bu baax a baax ndax am na loo xamante ni tamit état moo ko. état ko mën dëgg la moo ko mën. ñu ngi eh, lancé message Bassirou mm-hmm. Diomaye Diakhar Faye moom it mm-hmm. mu dimbali ñu eh, mm-hmm. gën ñoo jàppale ci dëkk bi eh, bu ko defee jafe-jafe ndox mi dana dana wàññeeku ci fànn wàññeeku bu baax waaw dana wàññeeku bu baax sëñ Fallou wax na ni mairie bi daal liggéeyam des na ci dëkk bi comme ni ma la ko mën a waxee man. Ah, da ngay jàpp sëfoor lañ da ngay jàpp sëñ Fallou déedéet yéen yéen waa léegi yéen yéen ah. sëfoor yi lu leen mairie bi waroon defal tey te defu ko bari na. Mhm. maire bi ñun comme ni ma la ko waxoon sànq ci njëlbéenu émission bi. Mhm. dama ne la ñun ñi ngi ñi dagg ay droit yoo xam droit de installation la. Mhm. li ñu xoolal liy tax ci dëkk bi. lii tax ci dëkk bi lépp. boo xoolee calculé ko keeru keeru dee kenn ku ne 3000. loolu xaalis bari la. ñu ngi ñu proposé ay cartes yoo xamante ni dañu koy daggloo. pour mu nekk mandarga moo xam ne pour dëkk bi lay doon. pour ñu xamee. ñi nga xam ne dañuy taxi ak ñi nga xamante ni taxi wuñ mhm. ndax comme ni nga ko waxee niñ ko ni ko mairie waxee dafa am ñoo xam ne dañuy liggéey ba wàcc rek mairie bi utul xaalis <laughs> foofu rek <laughs> du ma ni la déet <laughs> même xaalis bu bari sax lay doon foofu ndax mhm. li li liy taxi ci Touba mhm. li nga xamante ni li eh, ñi nga xam ne ñooy taxi ci kenn ku ci nekk da nga dañ la proposé nga joxe deux mille cinq cent ñu am carte boo xamante ni moo lay permettre pour nga taxi ci biir dëkk bi moo lay valable la pour nga Mm-hmm. ñu xam ni kii ab taximan la ci dëkk bi la nekk. loolu lépp ñu ngi ñu koy def loo euh, mu mel ni. Mm-hmm. mu mel ni kon ñun am na ñu ngi am na lu ñuy taxawee ci dëkk bi. Mm-hmm. kon war nañoo gestuwaat bu baax a baax loolu ma mairie laa koy wax. Mhm. mu dimbali ñu ci. Mhm. toj toj yi nga xamante ni mooy kàmb yi nekk ci tëli bi. Mhm. di yàq oto yi. comme ni ma la ko waxoon yëpp ak ci garage dara warul ko lu dul tëli bu bon. dëgg am na loo xam ne mairie war na koo mën a taxaw. wallaahi ndeysaan ndax comme Touba ca kanam ni mu koy taxawoo. Euh, day doon loo xamante ni mairie bi tamit. yéen mairie du ngeen ko du ngeen gis muy defar ay defaraat ay tëli yu yàqoo yu mel noonu. non non ñun moom wax te yàlla Touba ca kanam la ñuy gis ñoo ñuy defar. est ce que du mairie est ce que du mairie moo jox Touba ca kanam xaalis nag. ah kon. déet Touba ca kanam bu fekkee ni bu fekkee ni nit ñi ngi dàgg li kanam. Uh-huh. xanaa naa leen dalal fii laaj leen ba ñoom xaalis bi ñuy defaree. Uh-huh. ndax mairie lañ ko joxoon de ndax bu fekkee ni télé yi mi ngi yàqu te mairie mi ngi laaj mi ngi laaj taximan di laaj borom seet laaj dëpp. waaye bu ñuy defar ñooy Touba ca kanam lañ gis muy defar. waaw tubaa ca kanam wax dëgg yàlla moom. Mhm. ñun moom ma moom la ñu. waa mairie dina leen woo fii. bii di ñëw semaine prochaine incha allah. waaw mën naa am ñooy fay balekat yi. <laughs> mën naa am ñooy fay waaw balekat yi mën naa am. ok jërëjëf <laughs> euh, euh, sëñ Cheikh xam naa dinañ bu ñu ñëwaatee. waaw def kàddu gu mujj gi. waaw waaye balaa boobu sëñ Fallou. dafa laa laaj léegi lii fi doon ay jafe-jafe. solution yi lan la balaa ñuy yëkkati man nag solution yi li ma ci gis mooy. Mhm. état bi nga xam ni moo fi nekk. Mhm. mu bañ a naxante ak askan wi te xam ni Mm-hmm. au niveau du Touba dañ ko defal loo nga xam ni. Mm-hmm. doom ju ne jaar na fi bëgg ko. te amu ko ci ñoom. dëgg la ndax. Mm-hmm. bi xeexal Pastef jotee. def nañ ci ba def ci luñ leen xaarewul woon ndax yaakaar naa ci sëñ Bas laa ko déggee. moo ko bi premier ministre ñëwee ni ko ñii de joxe nañ seen alal. ba seen bakkan sax joxe nañ ko ci. loolu bari na loo nga xam ne xam nañ ko ci. dëgg la ndax lépp fi lañu fekk. bi vote jotee itam am na bis ma gis la nga ràngoo saag de <laughs> am ma ra la nga ràngoo foofu laa yem nag am na un ma gis la nga ràngoo ab saag voilà. Mm, mm-hmm. euh, bu bu loolu amee. Mm-hmm. vote jot. Mm-hmm. muy mag di xale. ku mën a doon yaakaaram. jamonoy koor. yaakaaram. la defoon ci carte bi mu yor. bi mu ñëwee état bi fi nekk la ko jox. kon dinañ leen tàllal loxo. di leen xamal ni askanu Touba. yaakaar jooju ñu amoon ci yéen. nga xam ne li ci man ak samay nawle ak ñeneen ñoo wàccoon ñu mhm. leen ñii am nañ yaakaar ci ñoom mhm. ni ku leen jox réew mi dinañu liggéey mhm. yàlla ba yaakaar jooju tas ndax képp koo nga xam ne dox na seen diggante ba loolu tas moom àdduna ju tukki la wallaay dëgg ndax nit ñi demoon nañ ba àgg ci foo nga xam ne danga naan sax ànduñu ak seen sago ci li ñuy def ngir bëgg cofeel yërmande joo nga xam ne am nañ ko kon nag li may wax mooy képp koo nga xam ne moo doon gàllankoor projet yi fi wala lu fi doon dugg ci dëkk bi. Hmm. ñoo daan tax fi mu war a àgg du fa àgg. Hmm. état bii nga xam ne ñu ngi ñëw bu ñu wër lu neex nit. Hmm. wala diwoo ñu boole. wala diwa ni ma jaaral ci kii. ba tax. liñ ci war a def duñ ko def. wallaay dëgg la ndax. bokk na ci lu gënoon naqari askanu Touba. mooy tur yoo xam ne dañu doon dégg ci dëkk bi. di dégg ni lépp lu askan wi war a am ñooñu ñoo ko déggee. kon nag bu fekkee juum nañ ba tabbi ci fiir googu. moom kenn mënatu leen ko layal. ndax. loolu moom lu leer la ñu bokk dundandoo ko ci dëkk mm-hmm, mm-hmm. bu loolu paase mm-hmm. nit bu fekkee def na ay devoir ba mu jeex li doon ay droit am dañ ko war a jox dëgg la muy taximaan yi di charretier yi di boutique yi képp koo nga xam ne li mu warloo ak mairie bu Touba def na ko rik li nga xam ne moom la ko mairie bu Touba warlul na leen ko defal mooy fexe ba say doom am kayit fexe ba fi ngay jaar lañu ci man seen kem kàttan ñu def ko fexe ba li nga xam ni mooy say coona mhm. wala bu fekkee da ngaa fay droit de stationnement. Mhm. ba pare taxaw fenn. Mhm. ñu fekk la fa jàppaat la nga fay. loolu itam nañ leen di protéger. ndax bu fekkee nit ki da ko naan boo fayee nangam ma protéger ci nangam. mu fay ba pare. nga bàyyi ñu doxale ak ñoom nu leen neex. loolu du respect. du luy dimbali sa dëkk. wallaay dëkk bi di Touba nag fi mu ne li mu soxla mooy. da nga sëñ Cheikh da nga joxe dara. ku ko ku ko ku ko wuuf ku ko taw ku ko yëkkati. sonn nañ ba fa sonn yam ndax. dama naan dëkk bi gën a sonn. ci Sénégal bu la neexee nga ni Touba la. ndax lépp ci ndaw yi fi nekk. képp koo xam ne bëgg nga ci lu am dara. benn da nga doon dawal ko def saret wala leneen ndax benn liggéeyam am fi. dawal saret bi ñuy kaas ni léeg-léeg nga kaas ko ba ci biir nga dajeeg benn xale. soo soo jàppee ci loxoom ba ngeen am problème. ba mu yóbbu la ba seen kër. da nga xam ni kii dawal saret rek la man a def. ndax papaam mënatul. Mm-hmm. yaayam mënul. Mm-hmm. nga xam ni xale bi. njàngam sax bokk na ci li ko xañ. Mm-hmm. mooy néew doole waay juróom. am na ndeysaan doguma la xale bu tut tànk boo xam ni. Mm-hmm. ale ci penk bi la dëkk. Mm-hmm. moom da doon jàng. waay juróom loxoom jutut di gannaawam. ñàkkum ndox mu tar ma amoon aliya taxoon xale bi jóge ca daara ji ñëw ci kër gi mooy rooti. saret bi la yor dem rooti te bu rootee ñëw woy juróom dem day xëy yor peel dem wuti lu mu am. mën na am mën na bañ a am. Mhm. yaayam dem ci marché ba di yaxantu ji moom moo nekkoon ministre wàllu hydraulique ci ndox mi. mooy rooti. waaye xale boobu bis dafa daanu ak saret bi. Mhm. bu dal ci kawam mu damm. damm dammam boobu rek ay waajuram mënuñ ko woon fay. Mhm. loolu loolu yëg naa ko. yaakaar naa doon nañ ko ketal. dëgg la am naa lu ma ci xam. ndax li ñuy nekk nekk ay ndaw nag. nekk ci dëkk bi. maanaam umpale wuñ dëkk bi itam ndax chaque jour ñu ngi ñu ngi jéem a gëstu suñu kem kattan ci li nga xam ni mhm. lu fi yàqu la wala liñ ci man ci lu baax ñu di ko def waaye fi mu ne fii Touba toll mhm. képp ku bëgg a dimbali mhm. ndaw yi fi dëkk faw nga fexe bañ am ay liggéey wallaay dëgg la gis nga bokk na ci loo nga xam ne tam lu ñu dal muy injustice totale muy njàng mi nga xam ne Touba manqué nañ ko tey ndax tey buñ la nee dañuy tere école publique ci Touba muy question bu dañ ko war a laal dañu ni la dañuy bañ ko fi jàng. Mm-hmm. français. Mm-hmm. ci dëkk bi. Mm-hmm. ba pare ay école français am fi. te doon ay privé di fayeeku nit mais kon lan moo tey ñu indi fi ay école publique. ndax Serigne la radiyallahu anhu bu fekkee tey dañu waxoon ni dañ fi bëgg indi école français. dem def ko fi ci lu dul ndigalam. mu ñu nañ ko fi jëlee loolu taxul mu bañum jàng. ndax ku ne xam nañu tey ku ni Cheikh Anta wax yoonu murit ndax maam Cheikh Anta lañ ko tuddee. moo nekkoon kilifaam. kan moo ko dugal mu jàngi. école bu mag bi njëkk a am njaareem. kan moo kan moo joxewoon ndigal ngir ñu amal ko fa. Mm-hmm. kon yoonu murit bañul jàng. Mm-hmm. jukko ji la doon bañ. Mm-hmm. bañ jukko nag. bu taxee ba nga nangu tey ki nga doon bañ jukkoom mm-hmm. nga jël say doom ni ko waxatuma sax nga fekk leen ci dëkk bi ma nekk ni ma leen di yare nga leen di yare mm-hmm. waaye bàyyi naa la ak ñoom mm-hmm. lépp ci journée bi nekkal ak ñoom ndax kooku tey li ngay bañ ci moom man man ngaa wax bu dootu ko def ci xale yi nañu téye xale yi ci dëkk bi ñu indi ay école ci dëkk bi xale yi jàng ndax bari na gone yoo nga xam ne xam nga lu yàqu seen jàng seen papa amul 15 mille yu mu faye oto bu leen yóbbu ñu jàngi am na ci ñoo xam ne seen papa amuñ 30 mille te képp ku ci yor ñeenti xale wala ñett ñuy jàngi. Mm-hmm. xam nga ni lii doomi baadoola mënu ko. dëgg la mm-hmm. te école yi nag li ëpp ci école yi fi am. Mm-hmm. wenn sant la ñuy sant wala sant weteeg wet ga wala ñu doon di jaayam. loolu nag lu mat a xoolaat la. <laughs> jërëjëf waaw. jërëjëf sëñ Fall xam naa kon kàddu gu mu jigi rek ñu jotaay xanaa xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gën a lancer waat message ci ndawu Touba ñu gën a góorgóorluwaat te xam ni lii ci sunu kanam muy ay élection gis nañ bu baax a baax taxawaay yi nga xam ne mbooleen député yi mos a am ci Touba. Mm-hmm. amee nañ ko mm-hmm. kon mm-hmm. seenu carte képp ku ñu koy jox nañ xool bu baax a baax a baax ba nga nekk ko nga xam ni duñ la jox seen carte nga pare woon Touba ginnaaw. dëgg la Touba soxla nañu ko jooyal. waaye soxla nañu ko taxaw. dëgg la kon askanu Touba. ñi fi dëkk. doon nañ góorgóorlu. nekkoon nañ ay jàmbaar waaye nañ gën a laxasuwaat. fexe ba. li nga xam ne mooy dëkk bi seenu bëgg. ñu jug di ci wax. di ci dox fexe ba muy am. ku man fexe ni mbedd mii dinaa jug maag kuréel nangam. fexe ba weer wu ne muy set ñu di ko def. ndax don de pour la patrie. dëkk nag li gën a bon ci loo nga xam ne koy wax ci askanu Sénégal. mooy njariñ loo fekkee mm-hmm. loolu moom du waxi dara mm-hmm. garab danga ko jëmbat mm-hmm. ba xëy faatu wàcc ko fi ñeneen di ko jariñoo ko tedde borom dëkk bi ni borom Tuubaa nag war nañ ci yoon ndax ku ne xam na ni bu fekkoon ne njariñ loo fekkee la gëm hmm. tey Touba ay sëtam duñu tedd ba ñun ñi nga xam ne dañoo askanoo ci dëkk bi di ci tedd hmm. kon ñu gën a góorgóorlu ci loolu di sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ci jub ñu sant ko ci yàlla lu dëng ñu xam ne ci mattem dong la wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Fallou Mbaye ñu lay sant bu baax di la gërëm sëñ Cheikh tam kàddu yu mujj yi nga tàggoo waale incha allah ñu yëkkati jataay bi bég nañ lool nag ci jataay bi hmm. dolli di kii rek. Mm. Eh, man sama mbokk yi rek laay waxal. Mm-hmm. mbokki taximaan yi. Mm-hmm. ndax eh, comme ay ndaw lañ. Mm-hmm. ni ma ko waxee woon. Eh, nañu gën a góor góorgóorlu. gën a jox liggéey bi gëddam. comme niñ ko comme. oto moom da ngay xëy di yàpp nit. da yàpp wàlliw. da yàpp koo xamante ni sax. du nekk. kon maa ngi lancé message ñu leen di comprendre. Mhm. di comprendre client yi daal. Mhm. comme ni ma la ko mën a waxee. Mhm. loolu laay profité di ci lancé. ndax comme da nga xëy teg sa lampe di wëri client. boo amee client respecté ko jox ko gëddaam. jox ko àqam. jox ko yelleefam. ndax comme ni ñuy wax ci taximaan nee na taximaan yi dañuy luubal ñi dañuy. jël yi fi jàmbur ñi dañuy euh, euh, mooy lancé message ni leen loolu nañu gën jàppaat liggéey bi jox ko gëddaam mhm. ndax amuñu lu lu taxi mi suñ mhm. xëyee suñ xëyee suñ kër mhm. taxi la ñuy def lu ñu am yóbbul suñu njaboot kon nañ gën a jàppaat liggéey bi gën koo jox ak xam waaw man fànn bu ma féete muy Madiyana wax dëgg yàlla euh, ay ndaw yu nungoo liggéey fa nekk yu doon jàmbaar yu maandu yoo xamante ni euh, euh, am nañ am nañ ci daal liggéey bi yoolu ñoolu ñu ngi leen ciy jaajëfal baax mel ni Serigne Balla si la mooy président ba man maay vice président maa topp si moom mm-hmm. moom moo ma fi yebal ci émission bi ni ma dafa am gànt ma iñ foo nga dem comme mm-hmm. yaa topp si man nga teewal ma fa mm-hmm. kon loolu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di sant ñëpp di bég nag bu baax baax mel ni jataayu njariñ rek la euh, mu mel ni lu bari feeñ na fi lu bari tamit dañ ko ci xamee kon loolu ñu ngi ci sant bu baax a baax euh, di la jaajëfal bu baax a baax macha allah bég nañ lool nag jërëjëf <laughs> sëñ Cheikh jërëjëf sëñ Fall waaye jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon suivre ak fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi wala sax bitim réew moo xam ci télévision As-Samadiyya moo xam ci euh, euh, ci télé ci rajo As-Samadiyya euh, FM. 102 point 9 euh, lu ci mën a xew tax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di leen jaajëfal bu baax baax seen émission Mamoun Diarra la woon euh, ñu amoon ci sëñ Fallou comme gan sëñ Fallou Mbaye waaye itam sëñ Cheikh Sarr euh, xam naa ne sëñ Fallou Mbaye leb na ko yaakaar naa solution yi ma koy laaj toujours ba tey mu jotoon <laughs> waaye du ñàkk xëy na beneen émission dana fi ñëwaat incha allah ñu waxtaanee yeneen sujet ci seen émission Mamoun Diarra mbokk yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء الجاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء الجاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء الجاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بما إبدالي ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بما إبدالي ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بما إبدالي ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار